par rapport à la situation au sein de Benno et de la paire bon man euh, dema déjà en 2019 j'alertais sur le syndrome Wade mooy que mhm. président réélu da ko soo utul quelqu'un hmm. ki nga xam ne dana la suppléer les militants de la paire ak de Benno le reconnaissent comme leur chef mu am ay prérogatives ba nga xam ne tey jii euh, bu subaa bu taxawee ne mooy candidat la wala yow nga taxaw ne kii mooy candidat kenn du ko contesté. kenn du ko contesté ndax ñu nanguwul woon dem nañ bu la voilà mais là on se retrouve dans le même cas de figure de Wade mooy donc en résumé ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que le président n'a jamais songé à renoncer à un troisième mandat c'est il s'est pas bien préparé bon. tey ji nag c'est ça le drame li mu doon bañ mooy le le motif bi mu waxoon ne que bu ma ko teelee wax sama parti day tas mais on va justement on craint d'aller vers euh, cette implosion de de parce que pour le moment nii il y a un jeu qui est en train de se faire en souterrain mooy nit ñi ñu ngi xool seen bii fan nañ koy dugal mmh. waaw ñu ngi xool les gens sont en train de voir fu ñuy dugal seen bii là mmh. où c'est le mieux euh, disant où c'est le plus gagnant mmh. ñu ngi xool fu ñu koy dugal bu ñu demee ba ci biir gis ni que avec ce qu'on craint une floraison de candidats euh, ou de candidatures euh, est-ce que du impacter sur le fonctionnement de Benno et de l'APR mm. waaw mooy li ñuy ragal euh, les votes sanctions mooy la fragmentation de l'électorat et tout peut benn ci benn moment être profitable au pouvoir comme également qui peut ne pas être profitable ci scénario bi nii. fragmentation électorale ça peut profitable. oui oui mais est-ce que loolu bëgg naa la ci laaj avant ngay pare fragmentation boobu yaakaaroo ni mun na nekk loo xamante ni ñoom seen biir ñoom ñoo ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko dressé di def euh, simulacre de voilà de tension fekk dañu bëgg a diviser le pays carte bi. Euh, quatre zones supposons fu nekk ñu am fa c'est toujours l'APR pour au cas ou deuxième tour am ñoom ils vont se réunir ah, moo tax ma ne ça peut être profitable au pouvoir ma maanaam soo xoolee un peu euh, situation bi et je l'ai dit hier j'ai dit que j'ai la nette impression que c'est un scénario mmh. qui risque d'être encore mal présenté parce que mal ficelé mm-hmm. moi j'aurais compris que tey ji ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye génn yaa six mois mhm. ci gannaaw mhm. Mhm. ku mel ni Mame Boye Diao génn yaa un an ci gannaaw et consort donc aujourd'hui légitimement lu ñu mën a jaay sénégalais daañ ko mën a nangu mais lii ñun teg nii nii nii jëluñu ma rek damay gën waaw ça ça ressemble juste a un captage de de vote de frustré bien sûr waaw te moi souvent j'aime bien écouter le président et quand je l'écoute je l'écoute entre les lignes hmm. bi muy recevoir les maires dafa am wax ju am solo dafa ne man euh, il m'arrive il m'est arrivé me susciter euh, une concurrence au sein de Benno au sein de l'APR ay liste maa leen di financer man maa leen di waaw maa leen di jox ay moyens maa leen di payal caution ne leen dem leen hmm. mais c'est-à-dire ce bout de phrase ça veut dire ça veut dire ça veut tout dire donc tey moom bu xoolee parce que euh, président Macky Sall on peut tout lui reprocher sauf d'avoir une maîtrise sur la carte électorale il mmh. maîtrise la carte électorale mmh. moom depuis ministre étant ministre de l'intérieur affaire boobu daf ko mus a intéressé il en a fait <laughs> vraiment une chasse gardée mmh. Mmh. donc moom xam na ni que au jour d'aujourd'hui il y a un effritement du vote de Benno ne parlons pas de la paire mais Benno il y a un effritement du vote te lan la mën a def bu ñu demee ci cas de figure bi ñu demee nii et il a fait l'expérience à mon avis lors des local mm-hmm. en créant des listes parallèles gis nañ ni que ça peut être productif donc pour répondre à ta question effectivement sa peut être fait à dessein euh, qui est ces petites colères à gauche à droite ces petites invectives et tout ça après pour in fine euh, au mm-hmm. bout de, de, de, de waaw on se autour de l'essentiel